asalaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyu waat di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport 221 the best sport news channel fukki fan ak benn moo dox suñu diggante ak matt yu senegal di waajal suñu diggante ak Togo muy éliminatoire mondial 2022 le premier septembre la ñuy joué li nga xamante ne mooy match bu njëkk bi ñaari matt lay doon nañu joué le premier ak le sept match bu njëkk la le premier lay doon ki nga xamante ni nag mooy Aliou Cissé biral a guut li nga xamante ne mooy liste bi waaye nag mu ñu gis ne ki nga xamante ni mooy Youssouf Sabaly moom jamono yi dafa nekk ci blessure maanaam dafa am gaañu gaañu bi nga xamante ni xam ngeen ne wéragul te kayiti xibaar bi sax wéral na ne dina jël ko jël toll ci ñaari weer balaa muy dellu si. te ki nga xamante ni nag mooy Lamine Gassama moom xamoon ngeen ne moom amagul club gannaaw bi mu jógee fi nga xamante ni mooy club bi mu nekkoon. di Göztepe foofu la ci championnat bu Turquie moom Lamine Gassama jamono yi ñooy waxee free agent la amagul club. Youssouf Sabaly nekk ci blessure kon am nañu problème ci li nga xamante ni mooy côté droit bi Youssouf Sabaly sax moom seetlu ngeen ne daanaka mat yi Sénégal mujjee jeu yëpp bokkut ci waaye nag ki nga xamante ne mooy Lamine Gassama moom mu fi nekkoon di doxal dal dina am blessure jamono yi nag lan mooy li nga xamante ne mooy solution bi ci wàllu googule ñu jàpp ne xëy na waxtu bi jot na pour ki nga xamante ne mooy Noah Fadiga Noah Fadiga daal di ñëw euh, jël li nga xamante ne mooy place am wane li nga xamante ne mooy mëninam ci équipe nationale ndax ñu bëri yàgg nañu laajte ne kii di Noah Fadiga war nañu ko convoqué jamono bi nag jàpp nañu ne kii di Aliou Cissé amatul benn lay ndax kak xam ngeen ne Moussa Wagué depuis mu amoon blessure depuis daaw ba fii ñu waxee nekkagul 100 pour cent loolu waral sax ba giseguñu ko mu joué ak benn équipe du Barcelone te gisuñu ko feneen fu ñu ko appelé gum waaye ki nga xamante ne mooy Youssouf Sabaly blessé blessé na comme ni ñu leen ko waxee Lamine amagul club maanaam compétiru kooku xam ngeen ne xalaatuñ sax di ko woo yaakaar naa si li nga xamante mooy match yooyu kon waa Fadiga jamono yi moom na ñu gis comme seule solution bi nga xamante ne war nañu ko mën a ko am ci match boobu nga xamante ne Sénégal lañ koy waajal comme ni ñu leen ko waxee fukki fan képp moo ci dox. fi lekk fan yu néew dinañu am li nga xamante ne mooy liste boobu Aliou Cissé war a biral si diggante Sénégal ak Togo. ci geneen wàll bu ñu xoolee li nga xamante ne mooy ci côté gauche bi seetlu ngeen ne kii di Abdou Diallo moom jamono yëpp moom daanaka latéral gauche lay football foofu la ca France depuis daaw ki nga xamante ne mooy Juan Bernat amoon blessure am boobule ki nga xamante ne mooy Kurzawa xam ngeen ne moom depuis mu jógee blessure ba léegi nekkagul 100 pour cent Abdou Diallo moo mortali saison bi daaw xam ngeen ne te ren jii moom noonu la tàmbalee saison bi maanaam début saison bi ñaari match yi ñu jéegum la te day joué comme latéral gauche foofu la ca Paris Saint-Germain moom sax bu ñu sukkandikoo ci commentaire yi mu def fan yi moom mu ngi jàpp ne daal mu ngi def lépp lu mu mën ngir mën a adapté ci système boobu maanaam ci position boobu ndax xam ngeen ne Paris Saint-Germain seen défense bi dafa xat loolu te kii Abdou Diallo comme moom dafa polyvalent mën na joué ci latéral gauche bi loolu waral na ba jamono yi moom la ñu utilisé comme latéral gauche te moom itam jàpp na n daal bu ñu ci commentaire mi rek ci li nga xamante moom lañ ci mën a jàngat mooy moom def na ci xelam ne poste boobu lay football foofu la ca Paris saint kon Abdou Diallo xëy na mooy doon moom itam beneen joueur boo xamante ni amaana dinañ changé position bu dee bu dee Aliou bëgg na am Abdou Diallo 100 pour cent comme li muy joué ci li muy joué ci clubam bu ñëwee mu joué ko comme poste boobu comme mooy latéral gauche. voilà kon jamono yi amuñu problème bu latéral gauche comme bu njëkk nga xamante ni Aliou Cissé da di jël suñu droit ci di ko joué di leen joué comme gauche. bii nag li mu am problème mooy côté droit bi ci la am problème voilà wax nañ leen nag li nga xamante moom lañ ci gis comme solution ñu séentul ba xam lan lay indi moom Aliou Cissé file ki fan yu néew dina biral li nga xamante ne mooy liste boobule. bu buñ jógee ci loolu nag dañuy wax ci li nga xamante mooy wàllum transfert ak suñuy gayndey ki nga xamante ni mooy kii di Pape Matar Sarr moom nag kayiti xibaar comme ni ñu leen ko fësalee woon ne ñetti club bi anglais yi ñu ngi ci ay mbiram kayiti xibaar bi dafa xëy tey ji bind ne man sa Manchester City jamono yi mooy club bi nga xamante ni jamono yi moo gën a jege ngir mën a am kii di Pape Matar Sarr Manchester City cité ñom euh, pare nañu ngir teg xaalis ci table ji waye nak ñu jàpp ne ñi nga xamanteni ñoo di metz duñu laal duñu laal lu manké 30 millions d'euros lumneu neew neew 30 millions d'euros mo mbaa ko ëpp di nga ko fay waye dal kayit xibaar bi limu biral moy Man City jamono moy club bi gëna jégé ngir wara mëna signé ki nga xamanteni ni ki di pap Matar sar ki nga xamanteni ni moy mbay Mbaye mbay Mbaye mu nga ni daaw mu ngi woon la ci Angleterre mëna déllu wat Angleterre Norwich City Norvège surtout ñoo bëgg a signé kii di mbay Diagne Mbaye Diagne mi nga xamante ni depuis mu dellu siwaat foofu la ca Galatasaray comme ni ñu leen ko waxee fan yi mu ngi toj foofu ndax ñeent match yi mu jéegoom marqué na ci 3 bi ak benn passe décisif mu nekk lu am solo moom mbay Diagne jamono yi kayiti xibaar bi xam na ne Norvège City bi nga xamante ni moom moom ni ki ren ji la dal di yéeg ci première division bu muy English Premier League bi tag nañu 3 millions d'euros ngir war a a signé kii di Mbaye ndax gis nañu Mbaye Diagne jaloore yi mu def daaw foofu nga xamante ne mooy ci West Bromwich Albion gannaaw bi ñu ko fa ablé woon donte ne yàggu fa waaye nag jamono Norwich City ñoom mi nga xamante ne ñu ngi soog a yëg dañu bëgg a delluwaat Mbaye Diagne foofu 5 millions d'euros nag moom la Galatasaray di laaj lum néew néew ñoom dinañu ko laaj ci ki nga xamante ne mooy Mbaye Diagne waaye Norwich City daal buñ sukkandeko ci kayiti xibaar bi ñoom duggee nañ ci coow li 3 millions d'euros moom lañ tagagoom ci taabal ji jamono yi xibaar xam la ne kon waxtaan baa ngi avancé diggante ñii di waa Norwich City ak Galatasaray Arsenal gannaaw bi ñu signé ki nga xamante ne mooy Martin Odegaard ndax jamono yi mën nañu wax ne Martin Odegaard joueur Arsenal la ndax dëdd na passe li nga xamante ne mooy visite médicale bi def na médicalam tey ji lépp jaar na ci yoon kon li ñuy xaar rek mooy ñu dal di officialiser transfert boobu kon jamono yi gannaaw bi ñu boucler transfert kii di Odegaard kii xibaar bi xam la ne jamono yi Marco Asensio mooy joueur bi nga xamante ne Arsenal pare nañu ngir teg ko ci 34 millions de livres maanaam bu ñuy xeebalu toll ci 40 millions d'euros ci lay toll moom la Arsenal daal di teg ci taabal ji ngir war a mën a signé ki nga xamante ne mooy Marco Asensio jëlee ko foofu la ci Real Madrid yéen a ngi fàttaleku ñi nga xamante ñoo di Arsenal daal dinañu woon signé ki nga xamante ni mooy Ozil jëlee ko foofu nga xamante ni mooy Real Madrid mu nekkoon lu bett loo xamante ni kenn xalaatu ko woon Arsenal nag doole jooju lañ jógee waate ren bëgg nañoo jël li baax yépp foofu nga xamante ne mooy Real Madrid xam ngeen ne Martin Odegaard joueur la boo xamante ni ñu bëri dañ koo bëgg Real Madrid at yi yépp ñu ngi koy able ndax xale la boo xamante ni bi muy ñëw Real Madrid 15 ans la am moom kii di Odegaard ñu ko ñu daal di ko wan able nag ci yeneen i ngir mu am temps de ren ji la ñu jàppoon ni xëy na mooy doon waxtoom ngir mu war a mën a wane boppam Arsenal ñëw dal ni koy jël jamono yi nag Marco Asensio lañ ci bëgg a teg ñoom waa Arsenal te ki nga xamante ne mooy Adama Traoré di joueur Wolverhampton moom nag ancien entraîneur bi nga xamante ne mooy Nuno Santo moo ko bëgg yóbbu foofu la ca Tottenham Nuno Espirito Santo moom nag jamono dafa dal di bëgg àndaat ak ki nga xamante ne mooy kii di Adama Traoré ndax entraîneur nag moo nekkoon entraîneur foofu la ca Wolverhampton ci at yi ñu weesu xam na ko bu baax 40 millions d'euros nag moom la Tottenham pare ngir teg ci taabal ji ndax ñii di Wolverhampton dinañu bàyyi ki nga xamante ne mooy Adama Traoré mu di dem foofu la ca Tottenham foofu la coow li nekk ba tey ci transfert ki nga xamante ne mooy Emerson bi ñu leen xamaloon démb wala barki démb nay ñii di Olympique Lyonnais dañu ko bëgg jëlee foofu la ci Chelsea léegi mën nañu wax officiel na ndax dal dina dem foofu ci Olympique Lyonnais dal dinañu koy appelé nag maanaam moom kii di Emerson Chelsea dañu ko appelé dégg nga lu toll ci mille d'euros wala 500000 de livres sterling moom la ñu dal di teg ci li nga xamante ne mooy transfert boobule voilà dañ leen ko abal mu ànd ak nag option d'achat moom ki nga xamante ne mooy Emerson kon jamono yi ñuy waxee ak yéen joueur Olympique Lyonnais la Chelsea Football Club gannaaw bi ñu prolongé contrat ki nga xamante ne mooy Kennedy Kennedy bi nga xamante ni moom at yi yëpp Chelsea dañu koy able rek xam ngeen ne daaw mu ngi woon fële nga xamante mooy Granada ca Espagne bi mu dellu see nag ren ji daal di ne prolongé yokk euh, contrat bi ba ñu daal koy able fële nga xamante ne mooy ca Brésil ci club bi nga xamante ne mooy Flamengo Flamengo la ñu able ki nga xamante ni mooy Kennedy bi jógee Chelsea Football ki nga xamante ne mooy Florenzi bi nga xamante ne daaw fële ca Paris Saint-Germain la nekkoon moom nag daal dinañu dem fi nga xamante ni mooy AC Milan kii di xibaar bi xam na ne jamono kii di euh, Alessandro Florenzi AC Milan lay joué ji saison bi dañu ko able nag mu ànd ak option d'achat kon ñi nga xamante ñoo di AC Milan jamono yi daal dinañuy jëlee kii di Florenzi foofu la ca AS Roma ba tey dañuy wëy ci li nga xamante ne mooy transfert ki nga xamante ne mooy Pedro bi ñu leen xamaloon ne moom itam ñii di Lazio dañu ko bëgg moom itam dal dinay dem officiel na Pedro mu ngi foofu la ca Lazio tey jii la ñu daal di officialisé officialisé li nga xamante ne mooy transfert boobu Pedro jógee na AS Roma dem Lazio de Rome UEFA dal dinañuy biral liste ab entraîneur yi nga xamante ne ci la ñu war a tànn ki gën a xereñ muy meilleur entraîneur foofu la ci Europe wala men coach of the year ñu war ko génne filé ci fan yu néew dinañu ko dal di xam ñet ñi nak ñoy nominé ci bokku na ci ki di Pep Guardiola Roberto Mancini ak ki di Thomas Tuchel moy ñetti entraîneur yi nga xamanteni ci lañu wara tan ki ñu tuddé men coach of the year fofu la ci Europe ci saison 2020 2021 batay yofa yamuñ ci dal dinañu génne ñetti joueur yi nga xamanteni ni ci lañu wara tan ci gëna a ñukoy tuddé men player of the year ñii di UEFA war ko tànn fileeki fan yu néew comme ni ñu leen ko waxee benn semaine moo dox suñu diggante ak loolu ñett ñii nag la ñu daal di tànn ba tey bokk na ci ñaari joueur Chelsea di Ngolo Kanté ak Jorginho waaye ki nga xamante ni mooy leen ñetteel mooy Kevin De Bruyne ci la ñu war a tànn kenn koo xamante ni mooy doon main player of the year maanaam joueur bi gën a xereñ ci Europe ci saison bii ñu weesu mooy Kevin De Bruyne Eh, Ngolo Kanté ak Jorginho ñii di UEFA nag dinañu dinañu daal di biral maanaam kan moo gañe ci loolu maanaam kan moo ci gën a xereñ ci entraîneur yi ci gardien yi ak ki nga xamante ni moo gën a xereñ maanaam joueur bi gën a xereñ bokk mu nekk meilleur foofu la ci Europe la 26 lay doon la 26 boobu lay sax ci la ñuy def li nga xamante ne mooy tirage au sort ci li nga xamante ne mooy UEFA Champions League bi nekk suñu kanam saison 2021 2022 filee ki fan yu néew le 26 ci la ñuy def tirage boobu ci bés boobu nag ci la ñuy biral li nga xamante mooy joueur bi gën a xereñ ci Europe ci saison bii nga xamante ni weesu nañu ko